Ousmane Sonko ba nga xamé né nangou nañ ko ci tooñ askan bi ñu joxat ko lu gën mais légui dañuy wax ak Ousmane Sonko leaderu yewi askan fi may jéxalé nak moy ñun ay gor lañu bañu waré dem élection dañ ko ni ñëwël yaay jité suñu liste ñoo ko sant parce que daf ni won duma cumulé ñu ni ko ñëwël quand même jité suñu liste mu ñëw ragal tiit ga nek ci liste ba la Ousmane Sonko jité motax Bah, na ci ñun mo campagne bi ñu am résultat ñu am ak des euh, ak suñu liste bee kon suñu nous ba des ñu ñëw naan dañuy faagaagal Ousmane Sonko dañuy considérer ñun askan wi parce que nous ñun ñoo ko def suñu champion ñun ñoo ko def mu jitu ñun nous ko def ni dañuy mais ci biir and bi d'accord ni conférence des présidents Khalifa Sall mo koy mu le président je sax pas ci président. Je ni président dañ lay de justice parce que dañ ko comme suis président de la république suis le lañ ko jox République. muy convoqué di président de la ñuy Je suis le générosité du Khalis, da am générosité ci daraja je suis am daraja de parce que suis le leader de la rek Ousmane Sonko non lañ ko champion bu ñuy dem di des sénégalais ni bu ñuy dem fenn ni ko jiitul yéen sax bu ñuy ñëw ci yéen ni ko jógeel Ziguinchor ñëw jiite conférence de presse lii bëgg ko woon wax nañ ko waaye dañ koy def parce que ñun ay gor lañu te du ñu gën a gore kon nag nañu wax président Macky Sall ni ko na delloo boppam waxuñu ko sax nañu xool ñun mais na delloo boppam na xool askan wi nit boo jiitee réew yàlla may la nga jiite réew li ngay njukkale yàlla njukkale ko nit ñi la jiital mooy seet seen bëgg-bëgg nga topp ko loolu la président yëpp di def président Lula ngi nii dellu si parce que dafa bëgg réewam ba réewam bëgg ko nit da ngay bëgg sa réew boo demee da ngay dellu waat parce que y a pas mille chemin nit ñi ñoo am jooju fulla ku leen bëgg ñu bëgg boo amee sa njaboot boo ko bëggee njaboot gi dañ lay bëgg yàkkamti la boo demee ñu namm la boo demee ñu jaarale la waat ci beneen buntu delloo si la xanaa moom bëggul loolu na déglu askanam parce que askan wi nag joxuñu ko un message codé de un message bien décodé lañ ko jox ci loolu la ñu nekk ci loolu la ñu nekk ak askan wi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di wax justice bi ni leen on n'a rien contre ñoom sunu justice la réew mu amul justice économie ba du baax kenn du ñëw investir kenn du def dara nañu respecter suñu justice teg ko ci yoon jaarale ko ci yoon jàmm ni ñooy mooy historique bi ba mu yegg si fii jërë ngeen jëf